بسم الله الرحمن الرحيم عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلننك سيدنا شداد بن أوس yàlla na yàlla gërëm ko mu jëlee ci suñu sang maulana rasulullahi sallallahu alayhi wa mu ne sayidul istigfaari an yaquula al abdu sangu listigfaar maanaam façon bi gën ci façon yi ñuy ñaane yàlla baal ñu an yaquula al abdu mooy jaam bi wax ni allahumma anta rabbi yow yàlla yow de yaay sama borom ilaha illa anta amul benn buur bu jaamu jaamu gi di jëriñ ñàkk gee jaamu di lor ndere yow kott xalaqta nii yaa bind wa ana abduka ma dib sab wa ana ala ahdika man de maa ngi ci sa kóllëre gama kóllëre hante woon ak yow depuis alastu bi rabbikum wa waadika ak dë gi nga xam ne dël naa ko ne danaa matal kóllëre gi mastataatu sama kemtalaay kattan audu bika maa ngi muslu ci yow min sharri ma sanaatu ci hayu li ma def musiba yi ma liggéey yëpp hay hay wa maa ngi ci muslu abuu laka bi nicmatika alayya maa ngi reconnaître it gi nga ma xéewale lu ne defal nga ma ko wa abuu bi dambi ñàkk jom gi ma dem gi ma ba fayee teraanga gi ma ma fayee def bàkkaar loolu reconnaître naa ko faxfir lii baal fa innahu lii mbir tey mbir laa yaxfiru dunuba illa anta kenn mënta baaley bàkkaar xanaa yow yonentu ne man qaalahaa ku wax lii min annahaari ci bëccëg muqinan biha muy aji hóolu ko fa maata min yawmihi qabla an yumsiya mu dee ca bëccëg ga balaa ngoon di jot fa huwa min ahlil jannati kooku dana bokk ci waa aljanna wa man qaalahaa min alleyli wa huwa muqinun biha ku ko wax guddi wóolu ko fa maata qabla an yusbiha mu dee balaa bëtë fa huwa min ahlil jannati aljanna lay doon rawaahul buxaari hadis jàng ci buxaari moo ko solo solo na ko ñuy ñaan sama borom ci barke ñaan gu tedd gile mu boole ñu baal suñu bàkkaar yu biir ak yu biti defaral ñu suñu zaahir ak suñu baatin hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim